soo bëggee tere koo xam ne dafa am détermination soo bëggee tere peuple boo xam ne dafa engagé mun na jur leneen ñoom gis nañu fii Sénégal si région yi ak si yeneen dëkk adduna bi sénégalais yi déterminé ñi gis ngeen suñu compatriote nekk muy Angleterre muy États-Unis muy feneen détermination boobu kenn mënul am sañ-sañ ne da ngay tere détermination boobu sinon mën na jugee donc pour man dañu delluwaat si seen sago xam ne lii détermination Sénégal la te ñu leen tere rassemblement moo tax ñu ñu ñu mun ko autorisé tey. ka ñu jiñ sàcc nga romb ko mel ni xamoo ko dañ ko ne woo expert yi woo ki ñu jiñ sàcc ñetti at. tek ay ay ay këyit sa table te yëngatu woo parce que nous veillerons à ce que justice bii du fi nekk di xoqatal kenn mais justice bi nga xamante ni ab président de la république da koy téye di ko defloo au de la personne de Bassirou c' est le système judiciaire sénégalais qui fait défaut à travers les rendus de justice euh, magistrats ñu leen di xoqatal procureur bi ñu koy napp nañ bëgg Sénégal mi ñu mbokk la ñu bokk ñu koy aar te loolu xeex la boo xam ne jàpp nañ ne que citoyen sénégalais peuple sénégalais moo ko war a porté dañuy waxtaan ak population bi sensibiliser leen yee leen si situation bi xamal leen ne problème mu Sénégal bi yëpp la du problème mu maanaam dafa aajo si wàllu kii wala kii wala parti politique citoyen Sénégal yëpp ñoo ko bokk moom parce que suy métti ñëpp lay métti suñuy foqati suñuy alal tam ñëpp a koy yëg ci kaw nag ñaari génération si kanam sénégalais donc dafa ajo ñu jug taxaw pour wane ne euh, gouvernement pour wane askan bi ne sénégalais déterminé nañu pour défendre seen seen ay droits ak seen ay euh, ressources. ku ku toog sa kër complice nga ku toog sa kër tu es un complice nous on n'a pas confiance à Bassirou Gueye ñu Bassirou Gueye il a assez de dossiers sur sa table il n'a qu'à gérer le dossier de Prodac ñun wóolu ñu Bassirou Gueye kan ma wóolu Bassirou Gueye kenn wóolu ñun wóolu ñu Bassirou Gueye wóolu ñu ko une justice indépendante lii Sonko waxal ko dañ koy doon teg bët ça trois ans on répète les mêmes choses voilà jërë ngeen jëf li ma yokk mooy xaaral li ma yokk mooy Macky a signé sciemment a signé sciemment le décret pour son frère o détriment du peuple sénégalais lu mu def moo ko tey nous voulons que Macky a Macky Sall annule tous les contrats tous les contrats. Macky Sall di nax c'est un manipulateur affaire bi dafay takk rëpp na indi na kese contrat yi wobaat opposition bi ñu waxtaan ci biir pétrole ba mu nekk xoolal mu nekk dialogue bu sincère. mais tant que mi ngi fii di jéem a nax nit ñi pour ay élection xamal di jaay doole di tëj ay nit tey mi ngi nii lii moom da ko dina ko topp ba giiru dundam ci kaw suuf. nit ñi wuyu si wuñu ñu ñun nit ñi dañu ñëwal seen bopp parce que nit ñi comprendre nañu Sénégal bokk na si réew yi gën a ndóol ci àddina bi réew yu sonn nekkoon ci ay nattu ak ay jafe-jafe yàlla baaxee ñu loolu bu ko kenn fàtte yàlla moo ñu baaxee. Ah li ñu fi découvrir ci pétrole ak ci gaz 2014 amul benn réew ci àddina bi bu ñu découvrir lu toll noonu bu ñu li ñu war a def ba suñuy sët sëtaat waxuma sax Sénégal mais toute l' de l'Ouest mën nañu leen dundal mën nañu leen yor waa lu mel noonu nag réew mi war nañoo seetaan ñàkk fayda ba benn fami benn président ak sa rak ak sa njaboot ñuy bàyyi nga jël alal ji di ko yóbbu bitim réew. soo jëlee ni wàllu Rwanda li wàllu Ghana ay pays africain ni ñun seen dédu ñuul da jël seen ressources yi ko nu mu ko waree moo tax seen dëkk di avancé lu tax Sénégal mënul def loolu. moo tax il faut ñu xeex ko léegi pour que su doom yi ëllëg tubaab yi ñu ñëw bëgg a ñëw Sénégal wala Afrique mais ñun duñu soxla dem seen réew donc sénégalais nañ jug ñun ñëpp temb xeex li pour que affaire bi mun a eggal suñu lii dafa nekkoon en cours rek dafa mel ne lu nekk en cours di téléchargé 75 pour cent 100 pour cent affaire bi noonu la demee lii lu ndaw la li bi bi si génnee la ko ëpp a ngi ñëw te xoolal ngi ci toog loolu mu ngi suñu kanam Macky Sall haute trahison lañ lañ koy toppee na démissionné dañ koy tëj kaso nga xam loolu lii ça vaut trente ans de prison et de vingt cinq ans de prison. xooqatal bi disi dina ci am euh, manipulation bi dina am dinañ ñu diviser mais am na groupe boo xam ne yàlla daf leen defar fii Sénégal billahi pour ñuy xeexal Sénégal. loolu du yow da jug rek nga ne dama leen di arrêté damay jug rek ne dama leen di tëj damay jug rek di jox xaalis ñooñu yàlla moo lay sàmm ay xale la ñi ngi fi on a besoin de cette alternative dans l'offre citoyenne et dans l'offre politique on voudrait que à partir de maintenant qu'ils soient inscrits dans la gouvernance la transparence et le respect des principes qu'ils le veulent inchallah ils le feront qu'ils ne le veulent pas ils seront punis dans le temps li ñu moom mooy suñu pétrole ñoo ko moom suñu gaz ñoo ko moom suñu or ñoo ko moom loolu nga xam ne tey ah loolu nga xam ne tey Macky Sall jël na ko jaay ko tubaab yi ànd koog doo rakam ak gorom ak jabaram loolu la peuple Sénégal di demander mu delloosi ko mu jox na ko ñun ñoo ko moom. lii nag débutant la dañuy dàmbali incha allahu rabbi chaque vendredi ñoo ngi fii ba am réaction bu leer peuple bi xeexuñu xuloowuñu li ñu bëgg mooy lu leer. ñun pare nañu pour xeex bi gudd pare nañu pour xeex bi yàgg on est armé mentalement pour ça duñ si dellu ginnaaw donc lii yëpp nañ ko xoolaat xool def ko saytu bu waax xool fu ñu dem def ay plan d'action pour que ëllëg tam ñu mën a ne xeex bi mais fépp fu mu jar temps bu muy laaj ñun déterminé nañu pour egg si loolu.